Mbaye Ndoumbé Sall yo yaay secrétaire général regroupement national des mariés du Sénégal Mbaye Ndoumbé lo xew waaw tay le 10 octobre dañu dajé ci Mbour di def suñu assemblée générale muy regroupement national des mariés du Sénégal tay biñu dajé ci 14 régions yi nga xamanteni ño nek Sénégal yépp sur les 46 départements yi fi ne mariés yi nga xamanteni ñom ño nek ci gox goxani ñom ño dajé daje ci ginnaaw bi nga xamanteni ni tey jii nañu li nga xamanteni moy regroupement national des marieurs du Sénégal ñeu di fi def assemblée générale. assemblée bi nak tenir na ki nga xamanteni mom moy le président Mamadou Gueye def ko président regroupement des national regroupement national des marieurs du Sénégal ci mandat bu ñetti at. di wax rek ni euh, ci biir lolu Mamadou Gueye lañu def comme le président au niveau national def le président le vice président. ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Ngom bu Joal deuxième vice président bi ñu def ko Nango Fall Mbaye Ndumbe doon la secrétaire général loolu la ñu fi tenir tey bureau bi après ci kanam xam naa ni peut de temps dinañ ko publier waat ci li nga xamante ni wax ni ñi nga xamante ni noonu la composé nekk. waaw li ñu wuutale ak yeneen kuréel yi moom mooy dañu jàpp ni mareyeurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en activité nga xamante ni jafe-jafe liggéey bi dëgg-dëgg ci ñoom la tegu ñoom ñoo dajale seen bopp. commencé ko ci li nga xamante ni mooy dakaar ba keroog ngay dem Cap Skirring Cap Skirring ba keroog ngay dem li nga xamante ni mooy Ourossogui jàpp Fuuta ba keroog ngay dellusiwaat ci dakaar dañu jàpp ni eh, bari na kuréel yoo xamante ni ñi ngi doon wootee te ba tey jii wax dëgg yàlla li ñu doon defar mooy liggéey bu yàqu bi la ñu doon wootee ngir defar ko li ñu wuutale ak ñoom nag mooy ñun dañuy jóg taxaw ci li nga xamante ni moom mooy action action bi nga xamante ni tey jii moom la ñu war a am bi ñu ko war a amee mooy ànd doon benn xool ni nga xamante ni tey jii mooy formalité yi marié war a am ñu dem wuti formalité yooyu nekk ci li nga xamante ni noonu la marié war a nekkee ba pare tamit taxaw ci li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu liggéey bi ñu nekk ci ñun daal li ñuy wax waaw bokk na ci li nga xamante ni tey jii mooy jafe-jafe liggéey bi jafe-jafe liggéey bi kenn ku nekk xam na ni danga doon jënd genn keesu jën dem jaay ji genn keesu jën tey jii mareyeur yi ñu ngi jënd eh, benn kees yi jën dem boole ko muy ñaari kees jën ñuy dugg ci biir marché yi di ko jaay bokk na ci yàqu-yàqu yi suñu oto yi nga xamante ni ñoom ñooy outil de travail yi nga xamante ni ñun moom la ñu yor ci li nga xamante ni mooy seen taxawaay bu ñu génnee ñu yab leen ba mu fees bu ñu jaaree ci kaw tali bi jafe-jafe yi ñu ci am bokk na ci tamit jafe-jafe yi mareyeur am ci oto nga xamante ni dëkk bu mu dem daanaka ca ginnaaw dëkk ba lañ koy bàyyi waaye amatul fenn foo xamante ni parking la wala benn réserve boo xamante ni commune yi réservé nañ ci oto jën fu mu war a mën a gaare bañ nañ ko ba sax da ngay gaare ci secteur boo xamante ni boo ñëwee dañ lay jàpp di la teg ay amende yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla doy na waar lool te loolu tamit gisaguñu benn organisation wala organisation yi ñu fi gis yëpp amaa ñi ngi nam na bu pour def ko pour def ko waaye wax dëgg fa yàlla trouvé guñ ci benn solution jox ñeneen ñi man kuréel yi ak li ñuy bari bari yëpp ñi ci yëngatu ak li ñuy bari bari yëpp gaal yi ñi ci nekk ak li muy bari bari yëpp ba léegi dégguñu yéen ngeen àddu ci ñàkku jën bi lan ko waral ak xol la soxla. waaw xam nga question boobu question bu am solo la ñàkkum jën mi dañu jàpp rek ci ñàkkum jën mi li nga xamante ni tey jii noonu lañ ko saytoo géej mool moo ciy dem ñun ay mareyeur lañu mareyeur lañu tudd amaa nag suñu mbokki mool yi dinañ dégg ñuy jooy jafe yi bu baax a baax a baax a baax mais. ñun en tant que mareyeur mënu gunoo li nga xamante ni tey jii responsabilité yi kan lañ koy mën a jox parce que ñun amaguñu wala amuñu opportunité mën a dem géej ñun suñu liggéey suñu domaine de compétence mi ngi commencé ci bi nga xamante ni keesu jën gi ñëw na ci tefes gi ba keroog muy dem ci marché bi kon dañu lay wax ni la ñun ay distributeur lañu ñu ñoo xamante ni tey jii ñoo habilité pour dem di nappi mool moom moo am domaine compétence mool moom mooy dem nappi moom mooy le pêcheur mais li ñuy wax daal mooy souvent géej gi am na ay jafe-jafe mais ba tey ji tamit mu ñu gën a li nga xamante ni tey ji moom mooy réellement li tax jën wi manqué. waaw hmm. waaw ci biir loolu dañu xool ci li nga xamante ni tey jii moom mooy CEDEAO ñu gis nii oto jën boo demee ci réew yi réew yi ñu wër dañu am exonération exonération bi ñu am moom mooy dañ leen di may à que ñoom bu ñu yabee du ñu jaar ci pont bascule yi te kenn du leen arrêté. ñu yaakaar ni Sénégal tamit war nañu toll ci niveau boobu loolu tamit ñu ngi ci lancé appel président de la république ministre de l' intérieur ak ministère de la pêche di ko xamal ni ko. ñun ko des fois dañuy yab suñu oto yi jën yi bu ñu ci kaw tali bi am na way ñun fay fekk ñoo xamante ni daanaka bu ñu séenee suñu oto yi dañuy bàyyi oto yëpp ñuy taxawloo te bu ñu taxawloo tamit wax dëgg yàlla am na lu ñuy weccoon kon teg loolu daal am naa yaakaar ne bu fekkonte ni génne leen ko ci defal ñu exonération ba suñu oto yi bu ñu mën a dem ca marché ba jaay jaay dellu si te benn dërëm du jóge ci seen poos loolu dinañ ko sàkku ci ñoom lool. yi fan waaw marché au yi ñi ngi santaat tamit ki nga xamante ni tey jii vraiment foofu di saluer ki nga xamante ni mooy ministre de la pêche parce que gis nañ ko bërki démb rek nga xamanteni dafa génn dem ci li nga xamanteni moy mooy yi dem ci quai de pêche yi and nañ sax fan yi la ci ginnaaw tourner bo xamanteni dañu gis ni jaar na ci euh, quai de pêche yep jaar na ci marché yep fep fo xamanteni travaux ma nga fay am ministre bi jaar na ko visité ko lolou nak yaakar la yaakar la bo xamanteni ni gis nañu ni mom mi ngi taxaw ci acteur yi gis nañu tamit jigéen acteur yi bu baax a baax amna yaakar ni ci kanam tuuti solution yi dina genn man la Modou Gueye dëkk euh modou bay yo la fal regroupement national des marieurs du Sénégal ñu la ci ndokkale di la ñaanal yalla yeen bi woyof. waa su ma nuyoo Sénégal gépp di nuyu 14 raison di nuyu marieurs du Sénégal di nuyu moli di nuyu sama mbokk yi marieurs yi ci Sénégal gépp di leen sante ci confiance bi ñu am ci man ba ñew fi tay ci Mbour ta buma président regroupement national marieurs du Sénégal confiance bobu ñu am ci man may leen koy delloo di leen sante di leen gërëm. di leen sant bu baax a baax nag di leen gërëm di sant mareyeur Sénégal ndax awma seen fay ndax sas nañ ma sas bu diis boo xam ne sénégalais yëpp ñoo ma ko sas ndax buñ ne mariage yamul ci fi ne yi rek ndax euh, famille yi sax ci acteurs yi lañ bokk ndax euh, soxna yi dem marché kon Sénégal ñëpp ñoo ma sas liggéey bu diis may tàllal nag ñi ma ko sas loxo di tàllal acteurs yi loxo di tàllal pêcheurs yi loxo di tàllal ñëpp loxo ndax defar mu jag

Euh, financement yu ñu war a jot ñii di wax ay oto yu bees yu ñu war a jot ñii di wax ay tracas yu nekk ci tali ñii di wax ay problème y a d'autres problèmes bari na mais problème yëpp dañuy toog péncoo ko ndax péncoo gi paasewul tey ñu woo sunu mbokk yi nga xamante ne ay organisation lañ yor ku ci mel ni monsieur Thierno Mbengue nga xamante ni dafa jiite organisation ñëw tey teew fi regroupe euh, waa CAPS ànd ak seen délégation yëpp ñëw teew fi ñëw ngir xool solution yi nga xamante ni moo na ci secteur bi ñu war koo bokk président Aliou Thiam yónnee fi délégation ñepp téw fi tay ñuy sant bu baax nak acteur yépp parce que ñun dañoo judd bi ñu juddoo ñaanuñu yàlla judd rek taxaw dañoo judd dox faj soxla yi askan li tax ñu yaakaar ñu ba fal ñu mooy jafe-jafe bi nga xamante ni moom lañ fekk ci secteur yi ndax it coow li bari na lool kenn ku nekk naan man la man la man la mais sénégalais yi seen jëmmi bopp mareyeur yi seen jëmmi bopp xam nañ ñan la ndax juddu bi nga xamanteni regroupement national du mareyeurs Sénégal mom la juddu juddu bi gaaw na torop bi mu juddoo bi mu doxee benn la ñu koy ñaanal yàlla lépp lu juddu bi gaawee do màgg bi gaawee ko noonu parce que xale yi am nañ ci yaakaar ndax démb ba léegi nelawuñu ñu ngi toog réunion di waxtaan nan lañu def fu war a jàpp war amul kenn koo xamante ni da ngaa xaaju ko jëm fenn ñëpp bokk nday bokk bàyyi ndax Sénégal ñëpp wuy si nañ ndax bu ñëwee fii ba Cap Skirring seen délégation ñëw nañ fi tey ñëpp ñëw nañ Kafountine seen délégation ñëw nañ Ziguinchor seen délégation ñëw nañ wax dëgg yàlla ay kilifa yu baax ñëw fi jàppale ñu def ci seen doole ñu remercier nag particulièrement su président Aliou parce que regroupement national des marie du Sénégal moom jugul di noono kenn dafa jug ngir liggéey talul détail talul benn détail talul détail dañoo jug ngir liggéey xajjuwuñ kenn dàquñu kenn noonowuñu kenn xooluñu li ci suñu ginnaaw li suñu kanam la ñuy xool jéem a defar parce que réew mi li Mimi Touré doon wax accéléré la classe ñun coow ci lañ nekk tontonte wuñ xeexuñu xulawuñ man de ñi ma àndal nga xamante ni dañoo am yaakaar ci man ba tey ñëw fii ci Mbour fal ma fi président man li ma leen di sant mooy kenn ku ci nekk fa nga nekk boo demee jàppal ni yaay président bi nga takku liggéey xool jafe-jafe mareyeurs yi ak solution bi koy faj ñu waxtaane ko dem ci ministre de la pêche Alioune Ndoye waxtaan ak moom mu jóg sol dàllam ànd ak moom te xam nañ ni buñ ko waxee dina ko xam nañ ni ñun suñu ko waxee dañu ko def ndax sol na dàllam ñëw ba ci man ñu séq ay teranga séq yeneen ak yeneen président Thierno Mbengue mii li may wax man na ci seede Jabel Mbengue mii di coordonnateur coordonnateur CAPS li may wax man na ci seede ñun daal xàjjiwuñu kenn dàquñu kenn ñu ngi tàllal yëpp loxo di wax ni solution yi bari na problème yi bari na mais lépp ci kaw taabal la ñuy toog réglé ko fa ci kaw taabal la ñuy toog réglé ko te insha allahu taala mareyeurs yi waxuma la mareyeurs yi immigration bi nga xam ne mooy clandestine nga xamante ni moo lumbi réew mi te li ko composé mooy mool ak mareyeur ndax ñàkk xam fu ñu jëm insha allahu taala sunu kuréel gii dinañ dem ba corona bi ni mu demee zéro cas dina doon zéro cas ci sunu kuréel gii ndax ñun porté nañ ko combat incha allah boole nañ ko suñu feuille te dinañ ci jàppale président dinañ ci jàppale kilifa ci réew mi dinañ ci jàppale ministre de la pêche ba mool nekkoon fa ñu nekkoon kenn ku nekk dellu ca dëkk ba nga nekkoon di liggéey di teer di gis sa bopp ci ndox mi beneen bi ci des mareyeur bi financement yi ñëw na oto yi mi ngi nii képp koo xamante ne yaa ngi dégg sama tur bokk ci regroupement national mareyeur bi Sénégal boo ñëwee incha allahu am nañ avalu président Thierno Mbengue am nañ avalu kilifa yi boo ñëwee dinañ la teg ci yoon ba nga mën a am ci oto yi. incha allahu am ci financement yi mën a takk sa ndig liggéey toog sa dëkk. parce que dëkk bi su ndaw ñu toogul mareyeur yi xale yi mareyeur tooguñ fi mool yi tooguñ fi buñ demee dinañ jëm suñu ressource bi ni ñu gis ko ñu ko gérer yeneen dëkk ñoo ñu ko gérer te loolu ñaanuñu ko yàlla. jërëjëf. maa ngi tudd Thierno Mbengue jiite association nationale des mareyeurs nekk conseil économique social et environnemental Thierno yow yaay président association nationale des mareyeurs du Sénégal beneen kuréel gi dootu nag. alhamdulilah loolu la ñaan parce que secteur de la pêche réew la réew nag ci jamono ji tool toll tamit ni amul benn part boo xam ne mën ngaa porter am réew yore ko coalition rek mooy am. moo tax ñii tey maa ngi félicité président Modou Guèye muy regroupement national de mareyeurs xam nga lu tax ma leen félicité napp gi tey àgg na foo xam ne say xale yeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñëpp dañ cee war taxaw ci. tey xam nga su ma nee man Thierno Mbengue kese man maa réglé napp gi damay nax sama bopp tey moo tax ñu kere benn kuréel goo xam ne ñu ngi koy wax coalition secteur de la pes mooy CAPS tey le président Alioune Thiam jiite ko te Jabal Mbengue mii toog représenté ko fi tey acteurs yëpp muy président Modou Gueye muy yenn organisme ñoom Jibi Ndiaye bi kay wax ñoom ñëpp ak pêcheurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir pour CAPS boobu régler problème mu napp gi te dina ko régler li tax dina ko régler mooy tey bu xoolee yaranka bi ren gis ngeen ni mu changé lu ko waral mooy daaw la président Alioune Thiam dafa jël millions yi bari def ko ci géej gi pour ay ndaa yoo xam ne jënd nañu am ay dëkkuwaay mu jënd benn bato boo xam ne 60 millions la ko jënde digga ko ci biir géej gi pour jënd am fu ñu dëkk loolu nag yaakaar naa bu ñu ñëpp lu àndee jàpp ci sànq mbay nu bi wax na ko nee na kees gi bu bu jën bi bu teere ci suuf ci lañu am xam-xam dëgg la wax na dëgg mais ñun tey dañoo ànd ak pêcheurs yi bàyyi saal ñoom ñu ngi nii toog ànd ak mari mareyeurs yi ànd ak transformatrice yi ñett ñi ñëpp la coalition secteur de la pêche la la CAPS ëmb. muy loo xam ne tey wóor na bu ñu ko tegee taabal ji dinañu dem CAPS nag wax naa ko sànq réew la nekkatul loo xam ne si benn organisation wala ñaar ñoo koy réglé ay organisation yu bari ñooy ànd joxe na seen loxo. moo tax may félicité Modou Gueye bi ma invité invité CAPS invité yenn organisation ñëpp ñu teg fii pour joxante loxo pour napp gi mën a kanam parce que c'est national le président Macky li mu wax mooy dama bëgg secteur fi nekk nii novembre bi ñëw incha allah ci lañu war a def euh, benn journée boo xam ne si mooy journée euh, kii hmm, comment dire sax ci lañu war a def euh, journée conseil présidentiel boo xam ne. conseil présidentiel PES président joxe na date bi. ci mois de novembre lañ koy def. pour acteur yëpp daje ñu xool jafe-jafe bi ñu defar ko léegi nag loolu bu dee am xale yi nga xam tey macha allah tey ñoom ñëpp ñu ci secteur bi di ay xale yu jàmbaar. tay fukki région ñen fukki région ñeent yépp ñofi dajé daje ak 46 département ñëpp ñew loolu dama koo rafetlu man dama ci and à 100 ñun nap gi képp koy defar rek and nañ ak yow mais Thierno nak dafa am lu mo wax fële te fàtte ko mooy yow dama lay remercier Thierno daf ñaar fukki kat ñi koy liggé ak yow di remercier presse bi yépp nak mais dama ko teg ci loxo nga joxal ma leen ko parce que fi yag nañu def dafa ñaar fukki kat ñi ngi and ak yow di liggéey ci presse ngeen di jallalel nap gi tay fu mu ag yeen am bay ngeen ci loxo kon ma ngi gërëm presse Sénégal bépp waaye di ko teg sa loxo yow Thierno Daaf gis nañ nga taxawoo xale yi jox leen kër jox leen lépp loolu am solo la maa ngi sant nag pêcheurs yi mareyeurs yi transformateurs yi di wax président Macky Sall kuréel gi ju tey da ci gën a teg loxo ak ministre de la pêche président Alioune Thiam pour xale yi maa dem ci kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm. parce que àndoon nañu fii amuñu fu ñuy nekk ba nit ñi di ko jooytu fu nekk Euh, ndax am na solution politique boo boo trouvé ci diggante bi. bu camion frigo am nañ marché central. marché central bi defe naa maire demal na ba waa ministère de la pêche jox na leen fi ñu ko war a def. loolu yaakaar naa ne ca président wax na ko conseil des ministres moom marché bu Thiès ñaari marché central yi taxaw nañ pour ma pour pour ñu pour ñu liggéey ko incha allahu rabbi projet bi financement bi génn moom marché Thiès léegi mbuur seen marché central au passé ñu teg fausse première pierre bi te xam naa liggéey bi ci li ñu ma wax 18 mois lay doon marché central bi pare camion yi am fu ñuy gaarañ coow loolu day daal di féete boor benn rek bu ñuy mujjee Joal Fadiouth am na seen i mool yu demoon Guinée Bissau ko loxo hmm. ndax ak waaw yëg nañ loolu te ñu ko yëgee sax foofu tam même le président Alioune Thiam daf daf cee jël ay délégation yónnee ko fa ñu dem waxtaane ci ak ñoom da jël problème bi yëpp dañ koy diwaat ci biir CAPS bi ñun ñëpp ñu àndandoo ci jàpp ci ba fi mu nekk ne yaakaar naa problème ba bu doon téeméeri problème la dis moo cay des waxtaan nañ ak mbokki mbokk nappkat yoon ñu xam leen tamit leen réew réewu jàmbur dafa am ay droit nañu respecté aussi seen ñoom tam seen i droit bu ko fee ñu bañ ci am benn problème parce que loolu tam il faut ñu koy wax comme ni suñu mbokk mandaar yi doon def ak waa Mauritanie loolu rek moo xew ci côté boobu mais mool yi moom kenn mun am seen fay dañ leen di remercier bu baax mais tam réew moo xam ne réewu jàmbur la il faut ñuy respecté seen ay droit bu ko fee coow loolu di mën a jeex la merci merci